Ousseynou Sarr maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum lay nuyu nu Sarr nga nekk architecte euh, nga participer ci quatrième édition bu salon de l'habitat Sen'Habitat euh, bi état bi organisé woon pour ay logement yoo xam ni euh, nit yi dinañ si mën a jot mu nekk priorité actuellement si gouvernement bi comme que bokkoon nga ci ndaje boobule solos ndaje si ak tamit ban bilan ngeen si tiré salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu képp ku lay dégg waaw quatrième salon de l'habitat bi am naa mbégte bokkoon ci bi euh, ngi commencé woon le vingt fële ci Diamniadio léegi premier ministre moom ubbi woon Amadou Ba moo ko ubbi bu ko ubbee nag dellu si na si affaire situation construction ak architecture bi Sénégal daal di wax ne manqué na quinze mille logements par an si Sénégal donc loolu lu am solo la loo xam ne euh, day indi jafe-jafe pour dëkkuwaay yi léegi wax na ne si salon bi ngi ci xalaat liñ ci tëgg yëpp dinañ ci waxtaan dinañ ko xool niñ koy doxalee léegi salon bi am na ñu bëri ñu jógee fu nekk ci bitim réew déjà ñoom Turquie lañ defoon euh, waa Turquie lañ defoon invité d'honneur am na ñeneen ñu joge ay Niger am na ñeneen spécialiste yoo xam ne ñëwoon nañ fii pour que ñuy weccee xalaat ak euh, seen naataango yu nekk fii hmm. léegi ci biir salon bi nag defoon nañ ko ay pàcc pàcc yi am na foo xam ne dañuy waxtaan ci affaire financement financement mooy lu ñuy régler affaire xaalis bi pour mun a def tabax yi amoon na affaire bu ñuy wax industrialisation parce que état bi dafa bëgg a gën a ñogal tabax bi gën a gaawal tabax bi pour ñu am ay technique yu bees yoo xam ne tabax bi dina gaaw pour répondre aux demandes amoon na ci affaire formation formation ak emploi parce que gis nañ ne tamit formation bi lu am solo la parce que bu amee ay ouvrier yoo xam ne da bëgg a def produit industriel yoo xam ne te mënuñu liir ñu jàng kayitu si nasaraan wala yu demee noon yenn yi duñ ko mën a monter duñ def mën def liggéey bi ni mu waree donc loolu yëpp euh, la nit ñi doon waxtaanee pour mun a xool nan la ñuy avancer si mbirum tabax yi ak dëkkuwaay yi yow daa gis nga ni kon daje boobu amoon euh, na solo te li ci génnee est-ce que askan wi dinañ ko mën a jëriñoo balay yàgg waaw wala déet. waaw waxtaan yi am na solo am na solo lool am na solo léegi ci nguur gi la des parce que foog naa fi ñu toll nii lu mel ni président moom xam naa ay wax ay xalaat yooyu soxalatu ko lu ñu réaliser moo ko war a soxal donc loolu la ministère yi war a Euh, <laughs> takk seen ceinture pour mun a passer à l'action parce que fi mu nekk jëf dafa jot jëf yooyu bu ñu ko deful euh, jafe-jafe yi du wàññeeku parce que jafe-jafe yi dafa yàgg fii si affaire loyer parce que depuis indépendance ba léegi état bi li mu waroon def ci local bâtiment tabax ak yooyu avancé wuñ ci defuñ ci jéego yu sori. gis nañ ne président Abdoulaye Wade bi ñëwee fii bëggoon fi def quarante mille logements. Mm-hmm. mais sori wusi mm-hmm. temps bi fi Diène Farba Sarr nekkee ministre aussi mu ngi doon wax day def quinze mille logements par an mais avancé aussi trop bon maintenant président Macky Sall def na programme cent mille logements si cent mille logements yi dafa ne day tabax vingt mille logements at bu nekk mais pour le moment bon ñu ngi commencé nii mais des na war nañu gën a Euh, accélérer rythme bi euh, accélérer cadence bi pour mun a tabax loolu ci yooyu daal lañ doon waxtaan. Mm-hmm. te ñu ngi xaar nag ko gouvernement bi mu jëfee li ñu waxtaanee yooyu yëpp. voilà cherté location bi ñu taxaw foofu ba léegi parce que am lien ak euh, salon de l'habitat le ñu gis ni location bi cher na ba njiitu réew mi sax woote woon na ca palais euh, ngir ñu ut ci ay solution balay euh, janvier 2023 est-ce que yow jàpp nga ni logement sociaux yi kese moo mën a changé mbir bi wala am nga gis nga yeneen solution lu dul loolu waaw comme ni ma ko waxee woon mhm. Dakar moom mënuñ def leneen moom day seer seer moom dina koy def tey dina gën a seer parce que suuf si moom njëg bi day yokk ciment avec fer yeeg yooyu yëpp dañuy yokk donc euh, li gouvernement di mun def mun a def rek mooy mu fexe euh, offre bi bëri li ñuy teg ci marché bi bëri hmm. buñ ko defee affaire bi dina wàññeeku njëg yi dinañ wàññeeku duñ mën a spéculation li ñuy wax spéculation ñi nga xam ne bon dañoo foqale trop wàññi wàññi seen euh, bëbët sinon euh, seen produit kenn du ko jël donc bu ñu ñëwee def vingt mille logements par an loolu moom dina am solo si dëkk bi dina tax njëg yi wàcc mais tamit bon état bi wax na ne dañuy wàññi logement yi à partir de janvier ñoom def nañu ñetti pàcc wax ne ñi ba cent cinquante mille dañuy wàññi boobu cent cinquante ba cinq cent mille dañuy wàññi boobu ak à partir de cinq cent mille am na lu ñuy wàññi bon ci sama xalaat dama solution boobu moom euh, solution ta taaxirlu na laa ko mun wax parce que dañuy jël ñëpp def leen daal le même panier parce que si sa sama gars yi am na ñoo xam ne seen kër yi ñuy loué du kër yu jaar yoon du kër yu baax kër yoo xam ne sax am na ñoo xam ne sax boo seetoon ci biir kër yooyu kenn mënu fa dëkk waruñu fa dëkk parce que du am éclairage du ventiler aération bi du baax dara du baax nga jël ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne def nañu baax nga yemale leen nga ne yéen ñëpp lii ngeen di fay beneen pàcc bi nga ne ñii def la ñuy fay baax na baaxul lii ngay fay affaire boobu moom lu yéeme la parce que loolu du encourager nit ñi ngi def qualité ñuy investir ci domaine bi bu yàggee ñuy wax ne naa def lu ma neex après bon nii lay mujjee donc état bi buy seet ay solution dafa war a ubbi affaire yi ñu togg ko bu baax parce que solution comme niñ ko doon waxee boo ko tegul problème bi boo ko tegul bu baax solution bi du baax moo tax ñu war di seet saytuwaat bu baax yenn proposition yi balañ koy génne Euh, voilà ñu wax ci euh, Ousseynou Sarr ci beneen ponk bu am solo di bâtiment yi daanu euh, surtout ci période nawet bi dañu gis ni bâtiment yu baree bari dafay daanu en tant que architecte pour yow lan moo waral bâtiment yu bari di daanu surtout nag ci jamonoy nawet. waaw ci mbiru bâtiment yi daanu damay wax ne fàttali ne réewu Sénégal depuis dafa def benn loi bu wax ne appelu qualité ci tabax lu ko soxal la lu ko ñor la ñu daal di créer ordre des architectes bi créer ordre boobu c'est pour ñuy aar nit ñi ci li ñuy liggéey ci liggéey boobu pour que architectes yi def seen liggéey bu ñu sosee seen plan plan yi topp entreprise yi ñu tabax kër yi mu nekk kër bu jaar yoon bu am sécurité malheureusement nag état bi comme ni muy def ci assurance automobile si oto yi di topp ndax am nga assurance amoo assurance defuñ ko si côté batiment su mhm. nekk boo jëlee téeméer bu nekk peut-être kenn moom mooy si dem seeti architecte yi ce qui fait ne nit ñi nekkatuñ si sécurité parce que dañuy dem foofu fu mu gën a yombee yaakaar ne architecte dafa cher alors que cherul architecte bi dafay nekk di lay xalaatal di défendre sa intérêt euh, di xool ndax li entreprise bi def baax na wala baaxul léegi nag nit ñi dañuy am seen kër investissement boo xam ne moom mooy bi gën a am importance seen àdduna nga liggéey trente ans nga ñëw di tabax kër nga ñëw jox ko koo xam ne wala nga jox ko benn maçon boo xam ne moom loolu tabax la exécuté la nga ne ko defaral ma sama plan tabaxal mais loolu sànni sa xaalis la parce que dañ ko tabax du jaar yoon kër gi du aéré du ventilé ba pare nga dem ba à la à la à la à la traité comme ni ñu koy waxee bâtiment bi di daanu sa bopp loolu amul solo yenn wul maanaam donc nit ñi dañ leen war a pousse ñu dem ci architecte yi naam mun naa signaler que ne sax état bi décidé na ci ci at yii si gannaaw. Euh, wax nañ ñi dañuy def léegi assistance architecturale comme ni ñuy defee assistance judiciaire mais tegagu des na tegaguñ ko ci place pour que koo xam ne dafa bëgg a def ay liggéey ak architecte te amoo moyens yi nga dem comme ni nga koy defee ci tribunal euh, ñu taxawu la ba nga def liggéey bu jaar yoon loolu nag dafa jot parce que lii xew Kaolack ci bi ñuy waaj a kër googu daanu ah juróom-ñaari nit gaañu si borom kër gi jabaram ak doomam loolu métti na lool tey fi nga nekk bâtiment yi daanu mooy mooy bâtiment yi nga xam ne jaaruñ yoon jaaruluñ ko fi ñu war a jaar parce que boo demee si architecte day jaar yoon liggéey bi day jaar yoon ñi ci war a def yëpp day def dañuy def seen liggéey mu nekk sécurité bâtiment mun na def téeméeri at mais fii dëkk bi dañuy def ah, bâtiment même pas fukki at ñu commencé ne batiment bi màgget na bu commencé di ko toj di defaraat am na ñoo xam ne fii daal bi li daal bi ñuy toj rek fayoon na architecte mais dañuy préféré ñëw toj daal sa beneen at ñu ñëwaat toj daal ñaata yoon dinañ dépensé ñett yoon li ñu waroon a fay architecte loolu nag état yi moo leen war a dimbale parce que loolu baaxul ci koom-koom parce que da nga war a def liggéey bi mu jaar yoon après nga hmm. dem defi leneen est ce que am na architecte yu doy Ousseynou Sarr est ce que hmm? architecte yi doy nañu fii Sénégal waaw architecte fi mu nekk ci lim war nañ toll ci ay deux cent cinquante mais comme dama liggéey bi liggéey bi yëpp fii Sénégal architecte yi defuñ ko moo tax ma ne fi mu nekk pour le moment doyagum na doyagum na mais buñ demaan ba mu changé war nañ yokk lim yi mais li ma gën a inquiété mooy administration bi dañu amatul interlocuteur ku ñuy waxal amatuñu ay naataango si euh, administration administration bi mu nekk dafay dem sans architecture te président yi nii projet yi muy def yëpp ay architecture la ah li muy tabax jam ñaajoo ah stade yi li muy def yooyu yëpp architecture la donc dafa wara a fexe pour que sur cent soixante sept mille euh, fonctionnaires yi amatuñ architecte daanaka kenn moo ci des te kooku sax liggéeyul affaire ni liggéey administration la la directrice de l'architecture moo fi des sinon l'administration n'a plus d'architecte comme dans tous les pays développés civilisés qui sont organisés le Sénégal n'a plus d'architecte dans l'administration ce qui est inacceptable ce pays est, va dans un désordre indescriptible te bu ñu demee ne loolu li ñuy waxtaan ak suñu yenn nattaangoo dëkk bi dafay nekk danger parce que li ñu waxoon am na charte Athènes bu ñu waxoon ci qualité boo xam ne ville war na am ville yi dañ ko war a tëgg noo xam ne nit ñi mun nañu circuler am ay loisirs mun a dem liggéey mais loolu yëpp ay jafe-jafe la fii pour nga doxantu dox trop tard problème la pour nga circuler circulation bi problème la donc on a une mauvaise urbanisation boo xam ne buñ ci continuer nii ba rek la ñuy jur day bloquer économie bi gis nañ mobilité urbaine bi par exemple plus de cent cinquante milliards lañuy perte par an ndax embouteillage ak yooyu lu ci ëpp embouteillage yi c'est parce que ni ñu defee dëkk bi baaxul bërki démb rek maa ngi déposé lettre ministère infrastructure pour inviter ñu changer par exemple sorti échangeur autoroute beeg yooyu loolu yëpp affaire architecture la. um um architecture bi day xalaat ci affaire yi nu mu gën a mën a fonctionner. mais ñi ngi defal dëkk boo xam ne dañuy tëj chaque jour ñu ngi tëj mel ni kaso lañ nekk noonu loolu du dëkk baaxul. donc architecte dañ leen war a gën a associé pour que ñu mun a trouver ay solution pour que suñu cadre de vie bi gën a baax euh, pour que nit ñi mun a am afia ñu féex mais nit ñoo xam ne nekkuñ ci cadre de vie bu baax musiba lay jëm mun nga dem yenn quartier yu fii euh, mun naa def sama quartier boo xam ne sama benn nijaay mos na fa dëkk xaw ma euh, kii ko xaw ma nan ci wetu yi laa mais da nga yéeme condition yi nit ñi dëkk da nga yéeme cadre de vie bu ñeel citoyen yi dëkk bi war na ci gën a taxaw war na ci gën a taxawaat war nañ def ay rénovation urbaine changé waat yenn dëkkuwaay yi parce que euh, sinon sénégalais yi si njàqare rek la ñuy nekk. voilà ñu am tranquillité d'esprit pour mun a liggéey nekk ay citoyens yoo xam ne dañuy productif loolu munul nekk bu ñu dëkkee si cadre de vie yu bon. voilà Ousseynou Sarr maa ngi lay jaajëfal Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. voilà man maa leen di jaajëfal si opportunité bi ngeen ma jox ni ma wax ci dëkkuwaay yi ci tabax yi ak yooyu di leen souhaiter plein succès dans votre entreprise. d'accord Ousseynou Sarr may fàttali ni architecte nga. jërëjëf.